Ndiaye Dia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, yow ingénieur nga en machine learning euh, cofondateur de l'institut des algorithmes du Sénégal waaye itam co-organisateur euh, Saltis Technolof yow ak institut des algorithmes yéen a créé plateforme bi nga xam ne moo di jàngat ci loolu la ñuy daal di waxtaan noonu la. noonu la. d'accord ci élection présidentielle yi di ñëw euh, ngeen def seen wàll euh, daal di taxawal ab plateforme mu jàngat bu am solo ndax mun nga ñu wax jàngat mooy lan nga présenter ñu boobu boobule plateforme bi nga xam ne euh, yéen yaa yaa leen ko créer. waaw jàngat benn plateforme la benn comme ni nga ko waxee xarala bu bees. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee ci langue wolof boo xamante ni day permettre Sénégalais yi ci période campagne électorale bi. ñu mën a am accès ci programme candidat yi mm-hmm. euh, mën xam li xam ni moom la ñi nga xam ni ñoom ñoo bëgg a suñu réew di proposer ci fànn wu ci nekk ci euh, société gi que mu nekk ci mm-hmm. wàllu wér yaram que mu nekk ci wàllu dund gi que mu nekk également ci wàllu dem beeg dikk bi mm-hmm. donc jàngat loolu la loolu lay permettre également sénégalais d'accord euh, idée bi naka la euh, naka la juddoo naka ngeen def euh, ak lan nga xam ne moom moo leen motiver ba ngeen taxawal li di plateforme mu jàngat. Ah, waaw uh, li ñu remarqué mooy ñun uh, Sénégal euh, élection yi bu jotee maanaam euh, waxtaan yi nga xam ni moom mooy am ci ci place publique yi ci débat public bi waxtaan yi risul lool lool lool. et que mm. la plupart du temps aussi du traité vraiment sujet yi nga xam ni. ñoom ñooy tourner autour li nga xam ne moom la pro moom la euh, candidat yi di proposer élection présidentielle yi euh, beneen bi également mooy euh, man en tant que sénégalais keneen ak keneen aussi en tant que sénégalais lambda pendant élection présidentielle yi dañuy am vraiment difficulté pour am accès ci programme candidat yi pour gis ko vraiment dafay métti métti trop ci ñun bi ci topp également mooy programme yooyu parfois ci ay dizaine de pages lañ koy bind wala ci ay centaine de pages donc nit ñi aussi benn instant amuñu yoon pour nekk ci papier yooyu di ko lire pendant des minutes et des minutes ou des heures et des heures. Mm -hmm. et même bu ñu paree du leen leer que nit nañ comprendre li ñuy lire foofu beneen difficulté la donc loolu lépp moo ñu poussé ñu daw dafay jàngat pour non seulement may citoyen bi mu am possibilité accéder ci programme bu candidat yëpp mais également mën a am benn outil boo xamante ni moo koy permettre mu analyser très rapidement les candidats pour xam candidat bu ci nekk lan la wax ci fànn bu ci nekk candidat bu ci nekk lan lay proposé ci fànn bu ci nekk pour mën a vraiment améliorer dundinu Sénégalais yi améliorer également Sénégal. ndax dañ leen a sollicité ngir ngeen taxawal plateforme mu jàngat wala yéen euh, yéen waa institut des algorithmes du Sénégal yéen am idée bi euh, ak créativité bi daal di koy taxawal. donc waaw kenn kenn sollicité wu ñu donc ñun ñoo am idée bi taxawal ko te loolu aussi euh, dafa ñëw naturellement rek euh, à travers suñuy activité parce que ñun ci yooyu la ñuy yëngu ci xarala yu bees yi mhm. donc chaque fois suñuy temps libre dañ koy consacré ay recherche euh, di def wàllum jàng di di di ko partager également donc no la demee daal te aussi dañoo nekk ci dynamique boo xamante nii dañu àdduna àdduna bi fi mu toll wàllu technologie yi da cee am am solo te mën nañ ko utiliser également pour pour euh, résoudre problème yu baree baree bari suñu réew yi donc ñun à chaque fois dañuy nekk ci réflexion yooyu moo tax événement bu am rek dañuy jéem a xool nan la ñuy a utiliser technologie yi pour mën a indi solution boo xamante ni dina aider nit na leen dimbale. Mm-hmm. d'accord jàngat naka lañ ko war a jëfandikoo. Euh, alors ni ñu koy jëfandikoo mooy euh, mën nañ koo télécharger ci téléphone wala tout simplement am na lien boo xamante ni disponible la boo ci cliquer rek dara yóbbu ci site bi ci plateforme bi boo duggee ci biir mën nga choisir candidat daal di choisir ay thématique mooy fànn lu ci mel ni wàllu mbay wàllu càmm gi wàllu wér-gi-yaram am na bouton boo xamante ni moom la ñuy woowee analyser boo ci bësee rek da lay indi proposition yi ni candidat bu ci moom la def pour développer fànn bi nga xam ni moom nga moom nga choisir mm. dañuy wax proposition mooy li nga xam ne vraiment candidat bi moom la am comme projet moom lay proposer comme projet ni buñ ko falee lii lay def Sénégal lii lay def Sénégal lii lay def Sénégal ci fànn wu nekk. Mm-hmm. d'accord am na solo jàngat euh, politique ndax ñoom ñi ngi jëfandikoo euh, boobule plateforme. Euh, candidat yi candidat yi surtout. Mm-hmm. yaakaar naa ko parce que man dama amoon ñu dañoo bi ñu koy développé dañoo amoon du mal am programme mais là depuis cinq jours bi ñu commencé lancer communication bi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ñuy envoyé programme yi. Mm-hmm. ne nii am nañ quatorze programme mais mën naa ni yëpp ay membre parti politique directement ñooñu ko envoyé. Mm. pour ngeen ko ci mm-hmm. ñu dugal ko ci biir plateforme donc xam na yaakaar naa ni am naa yaakaar ni vraiment ñoom parti politique yi ñu ngi utiliser jàngat pour mu aider leen que ñu mën a xam exactement candidat bu ci nekk lan la proposé mais également ñoom seen bopp ñu mën a am outil bu leen di permettre xam en temps réel au lieu que ñu yor un document PDF boobu ci téléphone di parcourir des de pages. jàngat da leen di may très rapidement a mën a xam ñoom seen programme lan lañu wax exactement ci wàllu mbay ci wàllu càmm. Mm-hmm. seen cible ñan la. Euh, ñëpp <laughs> mm-hmm. yi euh, médias yi société civile bi citoyens yi candidats yi également partis politiques yi donc vraiment ñëpp mën nañu ko utiliser. et euh, loolu moo nekkoon également objectif bi offrir tous les Sénégalais outil boo xamante ni dina leen ñuy mën di analyser les programmes des candidats après outil bi aussi langue française la. Mhm. donc euh, foofu itam beneen challenge la malheureusement. on n'a pas pu euh, le faire en euh, mënuñu ko woon def en langue wolof. Mhm. mais voilà ku nekk également je pense que boo ko utiliser di nga mën a dimbale sa morom bu fekkee mënu ko utiliser nga jëm ko wax exactement bu fekkee bëgg gën a xam li nga xam ne moom la candidat yi proposé mais aussi médias yi am nañ foofu rôle yi joué parce que ñoom ils ont am nañ capacité lire langue française et que ñoom aussi yaakaar naa ñoom ñoo war a informer nit nekk ci campagne électorale bi wala mu nekk leneen ak leneen donc ñoom aussi mën nañu ko utiliser a xam lan la candidat bu nekk proposé ci fànn bu nekk après aussi transmettre ko euh, da ngay fay wala. déedéet plateforme bi euh, dafa gratuite. Euh, mm. donc ku ci nekk mën nga ci am accès fi mu ne nii ku ci nekk mën nga ci am accès waaw dañ ko def vraiment dans une démarche généreuse parce que aussi période bu gàtt la élection présidentielle. waaw euh, mhm. d' accord application jàngat euh, ngeen tënk ko ci li nga xam ne mooy euh, xarale yu yees bokk na ci intelligence artificielle waaye ci Sénégal doon na dëkk bi nga xam ne électronisme réalité la maanaam ñu bëri seen xel màccul dara ci li nga xam ne mooy wàllum numérique ndax bile application yaakaar ngeen ni dina am résultat.

après nga cliquer ci bouton bu bleu bi moom mooy bouton analyse bi nga xam ne aussi voilà amuñu même capacité manipuler des kii numérique mhm. euh, je pense que utiliser application yombal nañ ko yombal boo xamante ni ñoom mën nañ ko utiliser rapidement mhm. d'accord mais ndax yaakaar ngeen li ngeen ci jublu woon di ngeen ko ci am parce que euh, ñu bëri seen xel màccul dara ci wàllum numérique Euh, yaakaar nañ ko yaakaar nañ ni bu baax a baax euh, liñ ci bëggoon nañ ko am parce que li ñu bëggoon encore une fois mooy offrir citoyen sénégalais yi ñoom ñëpp outil boo xamante ni dinañ permettre ñu mën a analyser programme candidat yi Euh, après loolu moo nekkoon objectif yi maintenant nag euh, je pense que question bi euh, c'est surtout ci nombre d'utilisateurs yi mm -hmm. est-ce que une grande proportion bu ama am solo dina ko mën a utiliser wala déet foofu mooy question bi mais ñun loolu mënuñoo vraiment def suivi bi malheureusement d'accord euh, ba ngeen ko taxawalee ba léegi boo doon xayma euh, genre def bilan euh, ndax gis ngeen ni ñu ngi koy jëfandikoo bu baax waaw gis nañ ni ñu ngi koy jëfandikoo bu baax baax parce que am nañu retour yu bëree bëri gis nañu également ci réseaux sociaux yi ci internet euh, LinkedIn partout gars yi ñu ngi koy partagé ñu ngi koy partagé massivement et puis aussi ñu koy rafetlu bu baax a baax et ñu ngi jox également ay retour ci ay amélioration yoo xamante nañ ko ci indi euh, waaw bu baax a baax. d'accord euh, loo xalaat rek ci programme ñi nga xam ne candidats yi ñoom la ñuy euh, fësal bu ñuy campagne ci programme dix-neuf ak lan nga jàpp moo tax ba askan wuy waa Sénégal ñoom lu ñuy voté di tënku ci programme candidat daa mel ni intéressé wu leen. Euh, alors programme programme la ah man yaakaar naa euh, réew pour ñu développer également ci ay projet la ñuy sukkandiku que mu ci volet social bi lépp lu ci wàllu dund gi mbay mi euh, mais également que mu jëm da ngay décliner projet yi nga xam ni projet yi kat moom mooy samay projet prioritaire pour que mu mën a développer lay proposer Sénégalais yi mm. maintenant li poser problème man yaakaar naa médias yi ñoo am rôle bu ñu jouer parce que nit ñi également médias yi la ñuy suivre pour ñu informer leen donc médias yi aussi ñoom ñoo war a jël les devants jël leadership bi pour mën a décortiquer ñi programme yi nga xam ne moom la candidat yi di proposé pour que nit ñi xam exactement ku ci nekk lan ak lan la proposé parce que ñun créé nañ jàng créé nañ jàngat. mais comme ni nga ko waxee léegi malheureusement nombre d'utilisateurs yi ah, c'est de proportion bi mën naa bañ a bari. Hmm. sax du bari parce que am na ci ñoo am na ci ñoo xamante ni aussi mënuñoo manipuler les outils numériques. nekk ñoom je pense am nga accès une radio mais également euh, yaa ngi suivre benn télé lu mu dee dee. Hmm. donc médias yi bu ñu jëlee devant. foofu pour décortiquer nit ñi programme yi parce que nit ñi dinañ am benn base solide boo xamante ni moo leen permettre ñu xam également voilà ku ci nekk lan la proposé euh, kat xam jàpp naa buñ ko tegee Sénégal Sénégal dina mën a bokk ci réew yi nga xam ñoo gën a développé que mm-hmm. mu nekk ci côté social wala mu nekk ci côté économique également mm-hmm. am na solo plateforme jàngat bu baax ndax fii ngeen di yem wala am na yeneen euh, projet ay défis yi ngeen bëgg a relever euh, ci wàllum intelligence artificielle Euh, si liggéey bi des na des na lu bëree bëri sax euh, après buñ jëlee ci pare jàngat ah, mhm. bëgg nañ ko euh, bëgg nañ ci def extension ci wàllu éducation donc permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy def baccalauréat ak BFEM ñu mën a examen am exercice yoo xamante ni dañ leen koy proposer ci biir buñ ñëwee rek def recherche ci lan lañ bëgg a jàng exactement mën nañ leen a exercice yi leçon yi liñ bëgg a ci wàllu média yi également permettre média yi ñoom outil boo xamante ni moo leen di permettre ñu analyser ay documents au lieu que ñu nekk ci kanamu document yoo xamante ni c' est wala milliers de pages pour ko en une journée wala deux jours jàngat da di permettre ñu mën a ñëw document yi en quelques minutes pour am vraiment li bëgg. Mm-hmm. pour administration yi également dañoo bëgg def jàngat au niveau xamante ni dina leen permettre ñoom itam ñuy mais également di def pour seen i documents seen i documents. donc loolu aussi c'est des réelles problématiques yoo xamante ni aujourd'hui xarala yu bees yi nga xam ne ñoom ñooy intelligence artificielle mën nañoo aider euh, pour pour ñu résoudre ko. Ndiaye Dia Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm bu baax. jërë ngeen jëf. Euh, ci fàttali rek ingénieur nga en machine learning euh, cofondateur euh, institut des algorithmes du Sénégal waaye itam co-organisateur des sorties technologues yéen waa institut des algorithmes yéen ànd daal di taxawal ab plateforme bu ñu naan jàngat. plateforme bu ñu naan jàngat.